mbokk yi ñuy teewlu ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. fii ci seen jotaayu gàggantiku bi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak Serigne Abdou Lahad Bousso mu ci daan dalal euh, ko xam ne xam nañ ko lool di borom xam-xam bu miin lool ci wàllu gi nga xam ne bay na ci awaar bu baree baree bari ci toolu sëriñ bi waaye it ci ëttu xam-xam ak diine. muy Serigne Mbacké Abdou Rahmane émission bi comme ni ngeen ko xamee daana doxe ci ñaari anam benn anam gi mooy daanañ jël bunt ci fiq topp ko di ko di ci fàttalante waaye di ci gindi ñi nga xam ne xëy na seen àlliwoo soriwul ci biir loolu it beneen anam gi mooy bu fekkente ne dem nañ ba mu yàgg ay laaj ay laaj daja fi danañu toog gaaral ko sëñ bi bu ko defee mu tontu ñu ci wax ñu ci Euh, lan moo cay taxawaayu diine ak yan atte moo ci laaj yooyu incha allah suñu jotaayu tay bi kon moom it dañ koy jëmale ci wàllu googu muy wàllum tontum laaj gannaaw boo xamee ne jotaay bi weesu doon nañu waxtaane aju ci alxayd wan nifaas te mooy euh, mbërëg ak besin wala boog mm-hmm. laaj yi fi daje nag xaw naa bari tuuti waaye it am na solo lool jàpp naa ne ñu ko laaj dana leen amal solo waaye it ñi nga xam ne danañ teewlu émission bi daan leen amal solo ndax ay laaj la yoo xam ne jamono laaj na ko waaye it euh, diine euh, bàyyiloo na ci xel bépp jullit xam naa bala maa ñëw ci laaj yi ak di joxe numéro yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa jaarale sa laaj mën nga cee jaarale damay daal di dalal sëñ bi bàyyi ko mu nuyoo ñu soog a euh, continuer jotaay bi incha allah kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. aouzu billahi min acheytaan arrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain waaleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk ñi nga àndal yëpp di nuyu sëñ Abdou Lahad mi nga wuutu ci jataay bi di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jataay bi di mbokkee daayira bi ci taxawaay yu am solo yi ci liggéey yàlla bi nga xam ne keppar ñoom bi radiyallahu ñaan yàlla li ñu fi dajale lépp doon njëriñ nekk aw yow mm-hmm. jërëjëf sëriñ Mbacke waaye jërëjëf it uh, équipe bi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci jotaay yi di sëriñ Abdul Xaadir Bousso ak sëriñ Mohamed Ngom ak it ñëpp ñu xale yi nga xam ne ñoo ànd ñoom ñëpp ci wàllu xarala yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax leen ziar mm-hmm. kon bala ñoo woyal jotaay bi dañuy fàttali rek ne képp koo xam ne am nga sab laaj mën nga ko jaar jaarale ci ñaari numéro yii

bëgg ñu tontu la ko ci jotaay bi mën nga cee jaarale sa question incha allah danañ ko tontu ci mm. suñu jotaay yi di ñëw mm. kon sëriñ bi ñu daal di jublu ci jotaay bi incha allah laaj bi ci jiitu kii dafay laaj ne kii ab jullit la boo xam ne dafa dem ca réew ma ñuy wax Amérique mm. bëgg am seen nationalité nee na nag loolu tax ba mu taxaw waat bëgg a signé ne lépp loo xam ne rek euh, bépp euh, euh, taxawaay boo xam ne Amérique dana ko taxaw jëmale ko ci beneen état wala ci beneen nguur dana ci ànd ak ñoom ak donte sax day taxawaay yoo xam ne wala boog day xeex boo xam ne day jëm ci diggante Amérique akum réewum boppam hmm. waaw moom daal ab jullit la bëgg a am nationalité tax na mu bëgg waat bëgg a signé ne hmm. lépp lu Amérique di def rek dana ci ànd ak ñoom wala sax mën na nañoo jël beneen réew bu Amérique hmm. réew mi nekk rek waaye du réewum jullit ak donte sax day jëm di xeexi maneen réewum jullit ndax loolu dagan na wala déwén euh, jërëjëf sëñ Abdou Khadir bu fekkee dégg naa mbokk mi li laaj mooy daal moom daa bëgg bokk ci américains yi ci ay këyit ba tax mu jaral ko luñ nekk mu ne ca bu ñuy tooñ it mu ànd ak ñoom tooñ bu dee loolu moom saa saa bu signé loo xam ne saa ñuy tooñ mu ànd ñoom tooñ loolu taawun al ithmi la dimbalante ci bàkkaar ab mm-hmm. du jaadu ci moom muy ànd kenn ci lu dul noona mm-hmm. rawatina bëgg dëkk foofa nga bëgg a dëkk foofa euh, li ëpp ci nit ñi day mel ne seen wërsëg lañ jàpp ne foofu lay ëppee te xamu ne wërsëg moom ba ko yàlla bindee da ko mooñaale nit ki mhm. fu mu nekk ci àdduna la yàlla wërsëgal ci moom dana ci jot mhm. du faatu mukk te jotu ca mhm. wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha fu mu mën a nekk ci àdduna kon ab julit daa dañ ko sant mu fàggu fàggu win rafet Eh, yonent bi alayhi salaam daa waxoon ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha na ngeen ragal yàlla na ngeen bàyyi xel yàlla te rafetal bu ngeen di sàkku bokk na ci rafetal booy sakku nag bu mu la tax a def lu bon bu la tax a juboo ci ak tooñ kon du dagan mukk ci ab julit réew mu mën a doon bu bëgg faa dem wala bëgg fa dara tax mu nangoo sëñ ne bu ngeen tooñ ma ànd ak yéen ci tooñ jaarul ci ab jullit te it nag amul njëriñ ndax du soppi ci li yàlla namm ci moom moom ba ko yàlla bindee am na lu mu bind ci wërsëgam ne fu mën a nekk ci na bala faat dana ko jot am kayiti réew moom ak men réew ak mu toog ci réew ñoo ci yem ñaaw ndax du soppi ci dogal bi dara te bu ko defee signé eh, signé benn mu daf lam signé daf naw ñaawteef wala defu ko wax na lu lu lu lu lu wérul mhm. lu ci nekk ñaawteef la loolu la jullit da ko war a moytu sëñ Abdou Khadre mhm. jërëjëf tontu boobu laaj na kon daal euh, dabu sa wërsëg ak itam jàpp ne euh, sa wërsëg fenn ci benn barab rek la ko yàlla yemale mhm. loolu jàpp na ne ñaaw njort la ci suñu borom waaye it euh, ñaawal aw fàgguin la mhm. comme ni nga ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mhm. na ngeen di ragal yàlla waaye di rafetal ci ni ngeen di fàggoo kon yaakaar naa tontu bi leer na kon dara jaru ko ci àdduna mm-hmm. ci di lëkkaloo ak nit ki ci ak tooñ mm-hmm. ak loo nit kooka wala book réew moom lu la mën a jariñ mm-hmm. wala book lu mu la mën a xëccal ci ay intérêt kon yaakaar naa borom laaj bi euh, tontu li leer na ñaareelu laaj bi kii dafay laaj ne euh, wanag yi wala toilettes yi nga xam ne ñooy ñoom lañu bootal jumaa yi ñooy nekk ci wetu jumaa yi wala boog ñooy ànd ak jumaa yi jàkka yi ndax ku fay dugg ñu lay fayyi ko Mm. an ko fa dugg da nga fay juróom wala ñaar fukk wala yu mel noonu mm. ndax dagan na wala dagan waaw xam nga bu fekk li doon cosaan Sëriñ mooy jàkk nekk waqfu mm. nga xam ne marafiq yam soxla mooy yañ fay soxla yëpp di ko jariñoo ci ay wanag ak ay jàppukaay yëpp day am ñu ko gàddu wala boog jàkk ji ànd ak lu moom loo xam ne mën naa mën naa taxaw loola bu amul nag nit mën naa defar ay wanag ci wetu jàkk daf fay jàppukaay wax ne fii nag ku fi dugg fay hmm. loolu am na ci jàkk yi waaye am na sax ci yeneen barab hmm. garage yeeg yooyu dañ fi am xam naa fii foo xam dañ naa la tuur ndox juróom tuur dugg fukk hmm. ku tur ndox juróomi dërëm ngay fay booy tuur dugg fukki dërëm ngay fay ndax loolu day mel ne loolu noonu am na ku yore liggéey boobu ca lañ koy fay moo koy defaraat di ko setal bu ndox manqué mu wut ndox andi fa kon ab liggéey xam ne dañ laa jox mas ah, benn xidma la ñu defal fayu ko hmm. xëy na nag bu fekkonte ne jàkka jee ko moom moom te mën a yor boppam moom loolu li doon cosaan hmm. yooyu dañ koy gàddul nit ñi la hmm. ñu am barab yoo xam ne jàkka ji amul doole xëy na loolu muy fayu ko nit ñi ci dem ci wanag wi ci lay defar wanag wa Mm. wala ci lay fay ka ko saytu mm. su boobaa nag loolu jàppalante ci lu baax la mm. mm-hmm. dëgg la jàppalante ci lu baax la te léeg-léeg du mën a ñàkk comme ni nga ko waxee ndax yaakaar na yëmul Sénégal rek waaye am na sax ci réew yu baree bari yoo xam ne mm-hmm. yenn barab bi ku fa dem mm-hmm. euh, boo bëggee def lu mel noonu boo bëggee faj aajo day am euh, benn prix bu ñu la laaj boo xam ne day semb sembul lay doon rek xam nga juróomi dërëm wala fukki dërëm loolu bariwut tey dana dimbale ñi nga xam ne ñooy nekk barab ba di ko saytu euh, mbokk mi moom dafay laaj ne ki ab jullit bu jigéen la ndax sañ naa dugg ci jàkka te laabut ak itam jullit euh, jigéen joo xam ne du ab jullit ndax may nañ ko mu mu wisit juma mu ziyaare ji juma waaw laab gi de xam nga laab ci ci lislaam laab gu mag am na gu ndaw bu dee jigéen joo xam ne sangoo ko war moo xam sangu janaaba la wala dafa amoon bërëg wala meret mu set te sanguwut wala boog setagut ñooñu dañ leen tere juma jigéen bu doon laata kaaf tey ci jàkk ba mu rek feeñu ko day génn jàkka ji bu ko nifaas daboon noonu bu ko janaaba daboon noonu dañuy tere kum ne ci moom mu dugg jàkk muy góor mu jigéen dañuy tere mu fekk ci jàkk ji nga nga wéy di toog ci mm. ngant am nit koo xam ne ay ay ay wala ay ñu bëri ñoo ko doon dàq mm. te làq làqutu jàkk ji rek kooku donte dafa yore xaydu wala nifaas wala yore janaaba sañ na dugg jàkk ngir làqutu sañ na faa toog bala muy ragal dem mm. waaye bu dul na nag moom ñu dañ leen tere dugg jàkk mm. loolu nag bokkut ak ku jàpp warte jàpp mm-hmm. kooku moom terewuñ ko dugg jàkk donte li gën nag jàkk soo koy dugg yóbbaale fa jàpp ndax nga mën a julli tahiyatul masjid bu dee waxtu wanaa fil dagan mm. waaye nag eh, koo xam ne moom sangoo ko war kooku moom dañ koy tere mu dugg jàkk ci coobareem dañuy tere it mu sax ci jàkk mm-hmm. loolu ñu jullit amma ku moom muy góor muy jigéen dañ koy tere dugg jàkk mm-hmm. loolu mooy mazhab imam malik mm-hmm. maanaam ku dul jullit du jàkk allahumma aajo masalan day ab liggéeykat boo xam ne lañ ko fay doyee moo ko fi man wala moo fi dàq wala boog mook fi gën a yombale masalan tey ab technicien la wala ab peinturekat la wala ab defarkat daal la boo xam ne lii jàkk ji soxla moom rek moo ko fi mën hmm. kooku mën nañ koo may mu dugg ko defar loola ñu fay ko hmm. ñu koy fay naka noonu bu dee am na ñeneen ñu ko mën waaye moo ko dàq hmm. wala am na ñoo xam ne moom ñoom ñoo ko yem moo gën a yomb la yomb gu fis sax yooyu mu ngànt la yoo xam ne mën nañoo may kooka mu ñëw defar loola amma dugg di wisit nii yeeg di seetaan yooyu rek moom jàkka màggaayam weesu na loolu sëñ Abdul Xaadir ok jërëjëf sëriñ Mbacke kon daal bu ñu ko déggee mooy jigéen joo xam ne ab la balaa sañ duggu dugg jàkka te yorul laab gu mag day fekk mu am ca ngànt mhm. ñaareel bi it mooy ku dut ab julit moo xam muy góor moo xam muy jigéen mhm. duñ ko may mu dugg ci jàkka lu may aajo mhm. euh, ñeenteelu laaj bi kii dafa wax ne euh, diggante ñaari way dencante yi dañoo am ay jafe dañoo nekk ci ay jafe tax ba soxna si dem ci kër waajuram kër baayam bi mu demee baay takk taxawal borom kër bi ne danga koy may baat borom kër may ko baat ñu dem ba am ñetti weer borom kër bi waat ak soxna si daal di booloo ak moom waaye bi muy booloo ak moom nag da cee yéene li mhm. jigéen ji fekk na booba baayam tëkku na ko ne ko boo delluwaatee sa borom kër bii danaa dugg ak yow àdduna ak àllaaxira tax ba ñemewut a wax ñemewut a wax baay bi dara ñemewut ko wax ne ko moom borom kër bi daal daje woon nañ mhm. muy laaj ndax sëy bii mi ngi compte wala compte tut waaw xam naa danañ ci xool ñaar hmm. fase mi mu ko fase woon ban xeetu fase la bu dee fasem payli la nañ ko nangu waaye budul fasem payli nag sëy amagu fa ndax budul fasem ngir sëy bi wéy dañ ko war a fasaat joxewaat ten dañuy joxewaat ten ñu fasaat ko te loolu bàyyam mënu ca ñàkk doon dara wala ku taxaw taxawaayu bàyyam waaye bu fekkee fasem payli nag te mooy men benn yoon la ko fase yéen ci menn fase ñaareel bi ñetti weer la wax ndax idda ji jeex na wala jeexul nu muy demee ñetti weer idda na cee jeexit nag bu dee jigéen joo xam ne ci ay laab lay lay lay lay iddawu mm-hmm. fii ni mën na koo fase ci xaala boo xam ne ci laab la nekkoon jotewu ci ñu toog tuuti bu gis baax mm-hmm. day daal di wàññi genn laab mm-hmm. kooku balaa ñetti weeree mat iddaam mën naa jeex waaye bu leeree kon ne idda ji jeexut te fase mi pasem payli la kon loolu mu def bu ko xasee def nekk yoraanu soxnaam ndax fasem payli bu ko góor gi di fayli day wax rek ma waxoon génn naa bu jaxasoo moom te yéene ca fayli fayli la mm. loolu nag duñ ci déglu ndigalul bàyyi wala ndigalul sax soxna si mm. ndax ba tey sëy bi daa jeexagul mm. fasem payli jigéen boo ko fase fasem payli sëy bi jeexagul bi dalil ñaar ñi ko seq ku ci njëkk faatu ku ci faatu te idda ji jeexut sama ram bi lay doon ki yor ñeenti soxna fa kenn fasem payle mënatu takk soxna fi mën a guti takk soxna lu dul idda ji daa jeex kon day mel ne bu gaa ko fa tey kooku nag saa yu ko neexee delloosi ko moo xam neex na bàyyi moo xam neexut bàyyi kon bu wéree fasem bi du fasem payli la mm. te idda ji jeexul mm. ñaare yu mu war a wóorlu mm. na xam ne sëy bu baax na ndax fayli na ko loolu tàggu ca baayam yoon sant ko jërëjëf sëriñ bi yaakaar naa loolu leer na nañ euh, kii dafay laaj moom ne commerçant bi wala yaxantukat bi nga xam ne léeg day def bu gisee ku soxla ku yittewoo ab faqiir daal di jël dara ci alal ji daal ko koy sarax wala mu dimbaleek ko léegi nag waaye ni mu doxale mooy day xaar nat natt asaka jotee rek da ciy génne yooyu mu daan saraxeeg yooyu mu daan dimbalee ñu day mel ni daal moom day xisaab asaka jota fekk waxtum jotagut hmm. wala boog lépp lu mu dimbalee nit rek bu hmm. ñëwee da ko ciy génne waale hmm. ndax loolu dagan na wala dagan loolu nag sëñ bi xaalis xam naa jar na faram-fàccee ndax moom bu fekkee ne bi muy jox néew doole ji sarax la ci yéene sarax la moom ndax loola nekkul assak te it ci mazhab Maalik dañuy tere génne asaka njëkk waxto ndax dañuy wax ne waragu la mi ngi mel ne julli bu waxtu wi jotagut boo jullee julli ko baaxut waragu la xanaa ñu dem ba waxtu wi jege lu tolloog weer wala lu gën a moom ci mazhab bi dañuy wax ne euh, lu jege mbir dañ koy jàpp jàppe atteb loola comme daanaka mel ne ne accès gut waaye jege na lool day mel ne accès na hmm. foofu bu génne woon dara danañ ko nangu donte sax gënul hmm. waaye du tee mu baax kon kon waxtu woowu nit ki si nga daje ko am aajo nga yëkkati xam ne nag lii kat ci asaka la hmm. ba koy joxe mooy da ngay jàpp ne asaka ngay joxe da ngaa jiital asaka ji waxtoom jotagul waaye kii dafa aajo woo wala dafa loru moo tax naa ko ci su may génnee limaale ko ci hmm. lool bokkut ak nga saraxe wala dimbulee waxtu asaka jot ngay këlkin diw sàngam joxoon naa ko nangam diw sàngam diw sàngam buñ la waxee ne la sa asaka ci la nga ne kon mooyal ma ci nangam ma nangam joxe na ma nangam ndax ba nga koy joxe asak nga ci yéene mm. bu dee waaw te fekk li teewoon asaka war la mutul weer wala ci la toll mm. suba baax na bu ko ëppee ci mos bi baaxut mm. ndax du dagaan ñoom dañuy wax ne boobu asaka waragu la day mel ne euh, nga bàyyi ba onze heures nga daal di tisbaar lu julli gu nur nur lu jat bu tisbaar jotee tisbaar war la ba tey waaye bu jegee nag ci ci ci bu dee asaka moom ba tey dañ koy tere waaye bu jegee ñu jàppee ko atteb lu aksi ba noppi rawatina bu fekkee aajoo ngay jox koo xam ne xëy na bu li jàlle mën naa am doo hmm. ko te ajo na kon ñaar yu jar na ca bàyyi xel hmm. eh, ndax jege na hmm. ak ndax bi mu koy génnee génne asaka la yéene woon bu bu yéenewul asaka moom don lu mu jege-jege même waxtu asaka jotoon mu jekki-jekki sarax nit ginnaaw ba ñu ne ko war ngaa génne asaka mu ne kon saraxoon naa diw dama ko cee génne déedéet parce daa bokk ci sartam bi koy génne nga yéene ko waaye sëñ bi daf mel ne foofu it am na ci loo xam ne mën na cee mën na cee leeralaale fii mooy hmm. am na ñoo xam dañ ko defee nii waaye dañuy def bu waxtu génne asaka jote hmm. képp ku ñu waroon a dimbale wala képp ku ñu waroon a lu baax hmm. wala mbokk gu ñu waroon a jokk ci asaka ji daal dañ koy dañ koy lañ koy joxee loolu it xam naa mën naa waaw xam nga il faut ñu bàyyi xel leen sëñ Abdou Khadir asaka alal la joo xam ne yow aji joxe ji moom ndimbal nag ak jokk mbokk sax alal nga koy def bàyyi xel loolu bu fekkee da ngaa baaxoo dimbali nit nga xam ne koo jàppe ki sa baax mm. saa bu weer sàngam jotee diw sàngam sama mbokk wala sama wëla dinaa ko dimbali loolu dimbal la tudd mm. bokku tëg nag asaka mi nga xam ne alal la joo xam ne yow mi koy joxe moomoo ko mm. faaw ñu bàyyi xel loolu dëgg la nag nit ki buy joxe asaka wala buy saraxe mu jox ko mbokkam moo ëpp tiyaaba mu jox ko jàmbur ndax yonent bi salaam moo ko wax ne sadaqa la ak sila bu fekkee kon waxtu asaka jot na ay ñu bari di ñëw say mbokk na ca wala ñu gën laa jege jox wa wàññiwu dara mm-hmm. waaye nag bokkut ak nga aada woo mm-hmm. dimbale nit mm-hmm. nit ba asaka jot nga xam ne fi ne boo ko joxee mu ma lay sant ak gërëm te asaka waru suje sant nit ndax ki nga koy jox moo ko moom moom ñaanal la la war na waaw baax na mu ñaanal la am maa nag di di la gërëm ak sant moom jaarul loolu sax bokk na ci li tax fuqaa yi wax ne li gën booy joxe asaka nga jaarale ko feneen Mm. jox ko imaam wala nga jox ko benn borom xam-xam boo xam ne moo la cay mm. jox ko ñi ko yeyoo. ngir mucc ci ñu lay tagg ngay gis sa bopp. Mm. te ngistal boobu ci am. day daal di yàq sa sa jaamu yàlla. kon loolu it war naa bàyyi xel. waaye jàppee ko loo xam ne waa ji moom bi nga koy jox daa jàpp ne ndimbal la. yow it loolu nga ko wax. fekk ci biir asaka nga yéene. ñaar yooyu bokkuñ moom seen xarit. moo tax xàmmee la mm-hmm. lu am solo la tey tey di ni nga ko waxee mm-hmm. léeg-léeg am xam ne ñoom diw sàngam at mu jot mu dimbalee ma nangam mm-hmm. fekk ndimbal loolu asakaam la la <laughs> euh, laaj bi ci moom xam naa kii dafay laaj ne ndax daal juma sañ nañ cee euh, tàggee ko faatu wala yéene ci ab xew-xew jërëjëf sëñ Buxaari waa juma de bu dee tàgge gi dañ cee jublu bu dee tàgge gi dañ cee jublu fekk nit ñi toog koo dendal ne ko diw sangam moo faatu mm. waxtu sangam lañ koy rob loolu dara nekku mm. mën ngaa topp biir jàkka ji xalaqaat yi ñoo dem wax wax ne leen diw sangam moo faatu ndax daa am wartee fi gunge ko yu war jullit ñi mm. yow léegi leen dimbale ci ñu mën ko taxawe amaa nag taal rajo yi di wax ne diw sangam daa faatu mm-hmm. loolu lañ koy naka noonu yéene ci lu mën a doon ci yooyu dañ koy tere allahuma loo xam ne lor ju matale lu mel ne ak lakk gu am ñu woo nit ñi ngir ñuy fay lakk gi mm-hmm. waaye amaa ku la dara loolu yonent islam waxoon na ne ku ngeen dégg muy yéene lu ci jàkka ji nee leen ko yàlla mu feeñ mm-hmm. ku ngeen gis muy siiwal am jaayam ci ji nee leen ko yàlla na lamb mm-hmm. day wane ne loolu jàkka tabaxuñ ko ngir yooyu kon uh, bu ñuy tàggee buñ taal rajo yi mën dugg ci jàkk ji nag wax ak nit ñi buñ taxaw ci bunt bi di ngàlle ko ci kaw mm-hmm. waaye daal ko romb mm-hmm. fekk len mën nga sëgg day leen ne leen diw ko tafaatoo mm-hmm. waxtu sàngam lañ koy jullee waaw bu dee loolu moom jàppalante ci lu baax la ndax teewee teewee romb jullee xam ne aw yow ci nekk teewee jullee gi teewee teewee denc gi waaw daa bokk ci àq yi jullit amel mbokkam bu woppee nga seete ko bu faatoo nga gunge ko jërëjëf sëriñ bi te xamtal gi am na solo lool yaakaar naa it leer na ci ñi nga xam ne ñooy teewlu jotaay bi mm-hmm. xam naa dafa mel ne liñ ñu séddi ci waxtu xaw naa jate dama lay bàyyi nga tàggatoo rek boo defee ñu yëkkati jotaay bi ba suñu a bi di ñëw incha allah ok jërëjëf sëñ Abdul Xaadir maa ngi lay dellu di nuyu di nuyu mbokk yi ànd ak ñun yëpp ñaan yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp yàlla ñu ci e, lim ñu jàngal bañ ma defe ndigalam ndax li tax jotaay yi mat di bàyyi xel mooy diine kenn du ko làmbatu Abdul Xaadir mm-hmm. yàlla daa bëgg defee leen nii mm-hmm. lu ngi li ngi def lu mu baax baax bu delluwut ci ab cës lay lu wér mm-hmm. xanaa sa yëg-yëgi bopp wala sa gisinu bopp loolu bokkut ak diine moo tax lu mën a doon nit di ko laaj ñu di ko tontu am solo mm-hmm. yàlla nu yàlla boole dimbali eh, taxaw leen yéen itam liggéey bu am solo ngeen di liggéey ndax jariñ nit ñi la nit ñi bëgg nañoo bëgg nañ lu baax waaye dañ ko xamul kon ku leen ciy dimbale di leen fekk fa nekk den leen jariñ yaa ngi lu baax ñaan yàlla defal jàmm eh, di siyaare ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi yow ñu ngi sant bu baax a baax ci jàppandal gi ak it ci euh, kàddu yu leer yi yaakaar naa képp koo xam ne mi ngi teewlu jotaay bi nga xam ne mooy gàggantiku yaakaar naa ne da gis ne yéene ji rafet na lool waaye it euh, njort lu kawe na ci niñ koy yaakaare saa yu ne kon xam naa dañ leen di sant bu baax a baax yéen ñu ñu doon teewlu ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci jotaay bi sëriñ Abdou Khadir Bousso ak sëriñ Mouhamed Ngom ak équipe bi ñu àndal ñëpp di leen jox dig daje ba suñu beneen jotaay gàggantiku incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam